téere bi nga xamante ni moom la ñuy wax Al Bukaa'u alaa Saadaati Ruwaadi tabkii al-'aynu 'alayhim kas-samawaati muy xasida boo xam ni Sëriñ Tuubaa daf cee melal ñi nga xam ne jël nañ seenu ndaw ak seen kàttan ak seen am-am ak seen xel ak seen xol jébbal ko seen borom subhaanahu wa taala te defuñu ko ngir bëgg àjjana waaye defuñu ko it ngir ragal sawara waaye dañ koo def ngir bëgg seen borom subhaanahu wa taala ak seen xol ñi nga xam ne noonu la ko kenn ci ahlul bayti la bu waxee Seynal Abidin Ibnu Atayn nee na gor yi dañuy jaamu seen borom subhaanahu wa taala ngir sant ko waaye jaamuñu ko ngir ragal sawara wala ngir bëgg àjjana sëriñ bi ni ñu ci melal loolu li nga xamante ni ci lañ jaaroon ba yegg ca tawfeex yu màgg yu kawe yooyu mooy ñi nga xam ne bi leen suñu borom bi subhanahu wa taala andee ci kaw suuf ñu settantal xalaat te suñu borom boo seetloo téeram bu sell bi borom xel yi ñoom rek la ci waxal ñu xalaat ni fi ñu nekk saxalu bi dafa ñu bàyyi ko nag te doo mukk mukk ci lu dul ak wetteel te suñ borom daf noo indi ci kaw suuf ngir natt ñu yendoo ko mu ayu ko mu ak suñu xamalam ma xam ne fii kër bu romb waay la waaye du kër bu saxwaay la ci leen gerte seen ndaw ak seen alal ak lépp loo xamante ni suñ borom defal na leen ko mu wëlbati ko jëbbalaat ko seen borom subhanahu wa taala mooy ñi nga xamante ni bàyyi nañ xel wa maa anfaqtum min shay'in fa mataa'ul hayaatu dunya wa baynatuha wa maa 'inda Allahi khayrun wa abqaa afalaa ta'qiluun mooy ñi nga xam ni bàyyi nañ xel bu baax ne àdduna lépp lu mu feeñ wala koy dakk na lépp lu fi nuru ab taarif ci dënn la jëm ci gént la jëm lu fi nuru nuru lu na tax ci ràpp la jëm lu fi yëkkati ko ci suufe la jëm lu fay tooy ci wow la jëm lu fiy dund ci dee la jëm ñu gis ni suñ borom mooy aju des bi ba faw teraangaan mooy aju des ba faw tawfeexam ak xéwalam mooy aju des ba faw ñu ngéeju woon li nga xam ne dafa am jëmm jëm ci nit yàlla yi suñ borom dafa am jëmm jëm ko woon mu nekk ci béréb boo xam ne ci àjjana béréb bu jéggi day la ba mu laajee dund bii lan moo ko yéegal ci biir martaba suñ borom daf ko tontu xamal ko ne ko bëgg gi mu bëgg nga xam ne lépp lu mu daan def daawu ko def ngir bëgg àjjana waaye daawu ko def ngir ragal sawara suñ borom bi subhaanahu wa taala béréb boobee ñu ngi koy waaye wala ne fi ñu jub mooy jub sooratu Rahmaan minal muttaqiina fi jannaatin wa nahaar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir minal muttaqiina fi jannaatin wa nahaar ñu sangoon seen xol sang seen kàddu sang seen jëf seen i kër ci lépp loo xam ne ñu ngi ci suñu borom subhaanahu wa taala gërëm ëllëg yawmal qiyaama 'inda malikin muqtadir suñu borom waajalal leen seen mbir bopp boo xamante ni foofa la ñu nekk dëkkaale seen borom dëkkaale bu sax dàkk di jàlloon di mun di sell bi subhanahu wa taala mooy tax ñoom ñoo ñii bi ñu xalaatee ne adduna mboolem dafa nekk luy dem la lu ñu yëkkati ci suufe la jëm ñu ñu ko waxee léegi ci leen gën seen bopp jox ko seen borom subhanahu wa taala boo demee ci Majma Rasaa'il am na téere bu am na benn risaala bu ñu ci wax risaalatu Taybiyya Imaam Rasaa'il yi di misaal ñi nga xamante ni ñu dikkee ci kaw suuf adduna loolu ñu ngi mën a tax yëpp nañ ne muy dund dund bu buy sax ñoom dañoo gëstu ne am na góor bu màgg te kawe ndax jékki jékki jékki wuñ am. te fi ñu nekk it jékki-jékki wut am kon mel na ne am na ku leen amal fi ñu nekk it am na ku ko amal te kookee mooy kañ war a jublu bañ waxante ak seen morom bi ci ñenn ñi ne ñoom dañoo wax ni ñun kat gannaaw naa ngi lekk naa ngi naan faj suñu yitte amatuñ jëneen yitte waaye ñi nga xamante ni ñu kawe yitte lañ gis ni lii yëpp luy dañ la ci lañu bëgg na seen borom subhanahu wa taala jox ko seen lépp ñu dem ba suñ borom bi dafa leen tawfeex yoo xamante du am du lu làmmiñ mën a tudd wala ba xel mën a xalaat suñ borom doon wax ni man de fii la jaahadoo fii naa lanahdiyannahum subulanaa wa inna allaha la mahal muhsinin ñi nga xam ne ñu ngi jihaat ak seen bakkan ba lépp loo xam ne nekkul suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm ci pas-pas ñu fóot seen roof ba mu set ko loola jaara ko ci sax ci li leen suñ borom bi subhanahu wa taala digal te ñu leen tere ba àgg ci seen roof set wicc suñ borom dana leen gindi jëme leen ci xeeti xam-xam yoo xam ne xel mënu koo xalaat lan nit mënu ko tudd moo tax suñ borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xam ne jëfe na lim xam suñ borom dondaloo ko xam-xam boo xamante ni nekkutoon xam-xam bu mu xam ndax xam-xam ñaar la benn bi dañ koy xam lu waaye benn bi képp koo xamante ni moo xam set na wit dafay mel ni ab seetu mbooleem xam-xam bi nekk ci lawul mahfuus day mel ni seetu bii day tiim bële la la ca seetu bële di feeñ ci biir mu di ko gis gis boo xamante ni gis bu jéggi day la ci lu ci lu ñu di ko mën a misaal ñooy tax mooy ñii sëriñ bi di misaal ci xob ka mooy ñu dog yoon wa te dox ba yegg yoon wañ jaarit ba yegg moom lay indi ngir képp koo xamante ni bëgg naa soobu ci yoon wi mu mën cee soobu ci gën gaa rafetee anam yooyu yëpp nit boo ko seetloo ci téere bu ñu xootul këlu wala tabaxaatul kubra imaam Abdul Wahab Sharani def ko xootul këlu Abu Talib nag ci moo ko def tabaxaatul kubra boo ko seetloo li ko tàmbalee Seydina Abu Bakr Siddiq ba ci xarnu juróom-ñeent téeméer yi nga xamante ni fii ci la imaam Abdul Wahab Sharani doon dund boole bu ñu fi jaar ñëpp ci ay nit yàlla indi na leen melal leen wax ni ñu doon dundee ak tawfeex yi lañ suñu borom bi subhanahu wa taala doon defal waaye yoon woowu yëpp yoon la woo xam ne muy yoonu tasawuf ñu ngi ko tànqee ci alquran ak sunna muy jëfe li suñu borom bi subhanahu wa taala digle teet lu mu tere ba àgg ci seen ruux set suñ borom dafa leen xam-xam boo xamante ne bi la waasita la amul kenn mu ko dox seen seen diggante seen borom xam-xam boo xamante ne gudd ruux bu set suñ borom subhanahu wa taala sotti ko la sotti ko la ko sotti ko di ko wax ñun la jëndee ñun nga xam ne seenu cofeel ci seen borom subhanahu wa taala ji gën a dayoo te dañoo bëgg suñ borom rek ngir jëmmam de waaye bëgguñu ko ngir aljanna wala ngir ragal sawara moo tax ci beneen xadis yonente bi salaa sallam di wax ne suñ borom day nee na laxad taala fawqa abraar ila liqaai waama ila liqaihim afdal bi rawqan ñi nga xamante ni day mooy ñu sell ñu ñu sellal seeni pas-pas ak seeni kàddu ak seeni jëf guddal nañ lool seenu coxeel ngir daje ak man seenu coxeel yàgg na seen dund gépp seen xol seen xalaat seen yitt lépp mu ngi ko gis bi nga xamante ni danañ ko daje ak seen borom mi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxa woon seen borom na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may daje ak yow diggantal adduna jëm àllaaxira nga xam ne dund yooyu bi ñuy dund seen xel ak seen xalaat lépp ñu ngi ko gis li nga xamante ni ci dañu lajoog seen borom ngir bëgg ñu bëgg seen borom subhanahu wa taala ñu mel ni ñu bëgg àdduna rek lañ ci bëgg waxtu wu ne bu ñu xamoon fu ñu xëy rek daje moom ñoom nag seen yitte yëpp seen borom la subhanahu wa taala mooy tax dañu ragal dee mukk foo leen fekk dañuy ngéejoo daje seen borom waaye suñu borom lam leen tontu bëgg boobu ñu bëgg a dajeek man maa leen gën a tar ak mbëggeel ngir dajeek ñoom yàlla na suñu borom bi subhanahu wa taala yooyu dëkk ci jëmm yooyu te saxal na ci melo yooyu ñu amee suñu bëgg lépp di suñu borom subhanahu wa taala te raxul dara ñu doon bàyyi xel bis boobu bi nga xamante ni suñu borom ñu ngi koy wattandikuloo keneen comme mën di doon it ci wattaqoo yawman turja'uuna fiihi ilaa Allah mooy bis boobu nga xamante ni jëmm ji dana gental àdduna wan ko gannaaw te dut fi dëkk ci mukk te su boobaa day man amila saalihan fali nafsi képp koo xamante ni saxoon na ci yéen aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw ba de ba bis boobu yegg mboolem lam doon jëf la cay tukkee ko lépp buñ ko yor ci bàmmeel moo koy teeru teral ko dalal ko waaye na koo mën a asaa faaleha jëpp jëmm joo xam ne dafa saxoon ci yéene ab safaan di ko wax di ko jëf ba bis boobu yegg ci kawam it la cay tukkee lépp it moo koy buñ ko yor ci bàmmeelam moo koy awu moo koy tëral moo ko fay wét wét te du mën a defali ko moom mukk moo tax ñun ñooñu ñu génn woon seen xel ci àdduna dégmal seen borom bi nga xamante ni mooy aji des bi la ko moom it mooy aji des ba faaw ñu doon bàyyi xel bu baax it wa ammaa man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa nafsa anil hawaa fa innal jannata hiya al-ma'waa képp koo xamante ni ñu ngi bàyyi xel taxaw ñi nga xamante ni ëllëg yawmal qiyaama dana ko taxawal boromam ba jàpp ne moom rek la bindoon ñu mu juddoo gane àdduna bi fu mu tëddee roo xam di teqalikoo ak jëmmam mboolem pas-pas bu fi amoon wala kàddu wala jëf dana ko feeñalaat ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala cëram yi di ko nett li benn par benn ñoom day ñu doon bàyyi xel gis nga biiram daan def seen yitte yi ba ëllëg dañuy taxaw ak seen borom bi nga xamante ne mooy moo leen bindoon te melaloon leen te kattanoon nañ leen doon nañ am kersa lool di dajeew di taxaw ci kanamu seen borom seeni cër yi nga xam ne seen borom daf koo bindoon ngir xalam wala muy gis ci kiimaanam yi wala di ko déglu wala war koy wax wala di ko jëfandikoo ci di ko jaamu ak ci lu dagan danañ am kersa lool seen cër yooyu xéewal ci taxoon seen borom jox leen ko ñu waroon ko saa soppaxliku doon nañu am kersa di taxaw ak seen borom cër yooyu di seere fa seen borom leneen lu bokk tam la taxoon seen borom bind ko moo tax suñu borom la man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa nafsa anil hawaa ñu bàyyi woon xel loolu yi daa nañ tere seen bakkan lépp lu mu bëgg te ñu ko suñu borom subhanahu wa taala gërëm waaye seen xel leen jiitaloon ci lépp ndax xel soo ko jiitalee texe daf lay ñeel adduna ak alaaxira ndax lépp lu sa bakkan jublu daf lay wóor ni li muy jublu naqar ak tiis ak mbugal bi yemul fenn moom la lay jural lépp loo jublu ci aw yiw it bu la sa xel joxee lam lay jural ci tawfeex yu màgg te kawe yu sell ak teraanga ci yéen fenn ëllëg it dana tax nga am dëgër am ak sax te loolee maa tax suñu borom bi ñoom ñooñu lay ëllëg fa innal jannata hiya al-ma'waa aljana mooy jannatul ma'waa mooy nekk seen wàccuwaay di seen bérébu bérébu teraanga loolu lépp nag moo tax jëm yooyu doon woon gannaaw àdduna dégmal seen borom daan bàyyi xel bu baax ñu namboon indiwaan yow ma isim bi ma xam damaa àqar bi mu génn fi nekk li mu bi mu gënee àdduna ni ñu ko waxee léegi ba suñu yeggee ci waxam bi teqalikoo ak jëmmam mboolem parce que sama kàddoom ak jëfam la mu jiitaloon ak la mu mujjee jëf lépp it suñu borom daana ko foonaat muy jënd ak moom fu mu tëddee àgg ci sukuraat di gis jëfam ji mu doon jëf lépp mu di ko gis di ko waxal di génn waaye it na ñuy gise jëf ji ni mu ko yor ci bàmmeel na ko jëf ji awoo ak na mu koy tërali ak jëfam jooju ni mu koy gisee bu àggee ci taxawaay bi ci pénc ba na mu jëf jooju taxaw moom ak seere yi nga xamante ni cëri yi yëpp danañ ko seere ci kanamu borom ëllëg ak bi jéggi siraat ñi nga xamante ni noonu la ko jëfam di def bu fekkente ni jëf yiw la béréb yooyu yëpp fu mu koy jaar alhamdulilahi rabbil alamin waaye su fekkente ni jëfu safaan la woon it wal iyaasu billah te du tax mukk bu mën caa mucc loolu moo tax nit ki war di jihaat ak bakkanam ak seytaane ak adduna ak bànneex ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na la lawla anna shayatina yahwamuuna ala qulubi bani aadama la nasaru ila malakuti samaai su fekkonte ne du seytaane mooy biiw ci xolu doomu aadama yi di def ci seeni xalaat ak seeni xel ay ñaawteef di leen ci xeer kon doomu aadama ñëpp suñ borom dana ñoori seeni kiiraay ba ñu jëndoon juróom-ñaari asamaan yi ay juróom-ñaari suuf yi di jëndoog aljana di jëndoog sawara di jëndoog ñu fi ñu bàmmeel yi waaye seytaane mi nga xam ne jaam bi fu mu toll ñu ngi ci wetam di ko xiir ci safaan di ko xiir ci mu di ko xalaat di ko xiir ci mu di ko wax di ko xiir ci mu di ko jëf kon jëm yooyu sëriñ bi di misaal yoon wa njaaroon bu mucc képp koo xamante ni yaa ngi tudd yoonu tasawuf yoon woowee ñu jaar ñoom ba suñ borom ubbi leen buntu yu màgg yu kawe ci xéewalam ak xam-xamam yu sell yooyu nga xamante ni moom la ñuy wax ilmu laduniya am ñu di ko wax maxrifa muy xeeti xam-xam yu màgg te kawe am na ci loolu gis ko wax mukk ci aw làmmiñ ndax xel daju ko waaye am na ci loolu dees na ko junj ci aw làmmiñ ngir ñu bëgg a jaar te wala yoon seen yitte ak seen farlu mën a gën a kawe mooy tax kon muy yoon woo xam ne nag comme ni ñu ko waxee léegi ci alquran ak sunna ci lañu ko tànqe muy yoon yi nga xamante ni mursaliin yi alayhim salaatu wasalaam muy yonent yi yi nga xamante ni ñoom ñépp ay géej leer lañ ñu leen toppoon te joxoon su joxoon leen seen bopp te yàlla rek tax ci yoon woowu ci lañ leen doon yar muy sellal seeni pas-pas seen diggante ak seen borom waaye sellal it seeni pas-pas seen diggante ak seeni morom ndax pas-pas mooy nit mooy fal bu sellee rek kàddu sell jëf sell ñoom nag yonent yi ak mursal yi muy yonent yi alayhim salaatu wasalaam ak ku mënul awliyaa yi nga xamante ni dondu nañu leen yoon yi ci lañu jaaroon di ko jokk jalaate ba fii nu toog di wax ak yéen li nga xamante ni noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ni bopp téeméeri ak bu ne suñu borom dana yabal koo xamante ni mooy yeesal yoon woowu yi loolu it du ñëpp duy dañ mukk te lay am na ci jamono bu ne Sëriñ Tuubaa it bokkoon ci ñooñu yeesal yeesal koo xam ne it miin la ndend lool ci yeesal yi ko jiitu woon ndax ni mu taalifee ci wàllu fiq noonu it la taalifee ci wàllu tasawuf nga xamante ni téere yu tàkk fiq yi ko jiitu woon yëpp yu fi bare bare bari taalifaat na leen ngir nit ñi seenu jege seenu dégg gën a jege waaye ñu ko jiitu woon yëpp ci wàllu tasawuf yi téere yi def it la ci ëpp solo bi yóor nga jël na ko taalif ko ay téere yoo xamante ni dana gën a jegeel nit ñi dégg téere yooyee kon nit ki balay sóobu ci yoonu yàlla dam war a njëkk a def mooy kawe nitteem te sellal ko te yàlla rek tax tuub bi tuub sell ci lépp loo xamante ni weesu na ko ci pas-pas wala ci kàddu wala ci jëf te loolee nit ko suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm ndax tuub bu sell dana far lépp loo xamante ni doon na tax nit ki suñu borom dugal ko sawara ndax yubaddilu llaahu sayyi'aatihim hasanaat képp koo xamante ni tuub na tuub bu sell ci li mu weesu ci pas-pas yi suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm wala kàddu wala jëf suñu borom boole mun defa ci ay ñaawteef suñu borom mën na koo sopp mu nekk ak yiw waaye it sant yàlla it dana tax nit ki suñu borom dolli ko ci lépp loo xamante ni maa way sabab ak duggam aljana ndax la in sakkartum la azidannakum saa su ngeen sante rek suñu borom bi subhanahu wa taala dolli leen jasaanul digle ak tere ci waxi suñu borom bi nga xamante ni innal xukmu illa lillahi ak laa muxaqiba li xukmihi ak wala yushriku fi xukmihi ahadan atte ci loxol suñu borom bi subhanahu wa taala rek la nekk te lépp lu mu dogal it amut kenn ku ko mën a indiwaat jeex na duñ ko def misaal tribunaalu suñu borom amul attewaat bu dee tribunal yi eggu na la nag tribunal bi mën na laa àtte àtte bi ñàkk laa neex nga defaat appel beneen tribunal waaye suñu borom moom lépp lu mu àtte amul kenn ku koy àttewaat moo yor kàddu bu nit te la muy àtte it amul kenn ku tey ànd ak moom wala ku ñu koy déglu wala ku ñu koy diisoon wala ku ñu koy sottanteel xalaat suñu borom boobu nag moo àtte ne lii ma digle mooy yoonu aljanna waaye lii ma tere it mooy yoonu safara bu fekkente ni jëmm dafa laaj ni lan mooy ab àtte wax ko ne ko àtte day mooy saxal lu ñu digle wala dàq lu ñu tere maanaam mooy saxal mbir wala nga dàq ko loolu mooy ab àtte maanaam nga saxal dara wala nga dàq ko kenn nag amul kattanu dàq li nga xamante ni suñ borom bi subhanahu wa taala saxal na ko ci ab àtteem waaye kenn yi amul sañ-sañu saxal loo xamante ni suñ borom bi subhanahu wa taala moom ni aju at atte ji di ku xereñ it dàq na ko kenn amul sañ-sañu saxal loolee moo tax laa mu xaq ba di xekk ñu mu ni nag jëf su sellee suñ borom bi subhanahu wa taala da koy def ci gaal goo xam ne du yàqu mukk su fekkente ni yàlla rek a tax ngay jëf te boole woo ca dara di jëf te yàlla rek tax bokk na ca boole yëkkati sa alal di ko jox nit ngir gëm yàlla te bi ngay dem nga fas ne yàlla rek tax nga di ko ko jox nga dox ba yegg ci moom ba nga ko jubee mu dóor la am talaata wala mu wax la wax ju ñagas du tax la nga façon njëkk nga koy gis ni lii dama ko koy jox ngir jëm yàlla du tax loolee nga delloo ko ci sa poos waaye gannaaw suñu borom rek taxoon nga di ko ko jox danga ko koy jox rek ngir jëm yàlla jëf te yàlla tax it nga wéet ak nga wéet li boo wéetee sax ci ngay gën a saware waaye bokk na ci màndargam jëf te yàlla taxut soo wéetlu ko ci ngay gën a saware ci boo wéetee yow rek mooy tax muy jëf su fekkente ni yàlla rek mooy tax nga di ko def suñu borom daan la ko defal foo xamante ni du yàqu mukk waaye su fekkente ni jëf yàlla taxut te nekkul jëf bu sell day nga ni pënd bu ñuy saare rek lu jëf ba bari bari ak lu yëngu ba bari bari dina du benn mooy tax nit ki lépp lu muy jëf la yàlla rek tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni am na nit ñoo xamante ni ëllëg yowmal qiyaama danañ leen teewal ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala seeni jëf day mel ni doj la gën a rëy waaye ñoom ñëpp suñu borom dafay digle ñu yóbbu leen safara wal iyaasu billah mu ne ko yow yonent bi yàlla bi ndax ñoom lañ daawul julli mu ne ah kay daanañ julli daanañ woor daanañ jël ci guddi gi ay waxtu yoo xamante ni dañ koy jaamu ngir yàlla rek waaye dañ daan def bu ñu leen gaaralee dara ci adduna rek mu tëb jëm ca loola wala yàlla yonent bi daana wax ni sama gannaaw adduna dana ñëw loo xamante ni dana lekk ngëmu nit ñi ñu sawara di lekk mat loolu lépp nag buñ ko seetloo ci suñ jamono jii ñi nga xam ne tey misaal ñu sëriñ bi war a indi ci téere bi ñoom la ñuy tuddee ñu ñoo bokk ñoo ñoo nekk ci bopp diine ji war a saxal seen tànk ci saraatal mustaqima war caa teg seen njaboot te waruñoo ci bëgg ku leen ca tagg waruñoo ragalit ku leen ca ŋàññi waruñoo xool ku leen ca jublu waruñoo xool ku leen ca woon gannaaw ñoom ñëpp boo ko seetloo jaay nañ seen ngor ñu ci bari jaay nañ seen ngor jaay seen diine nekk ci buntu buur yi ñu nos seen bakkan ci buum jébbal ko nitu adduna yi ak seen mbooloo fu leen neex jamono leen wala yaasu billah loolu jamono yi képp koo xamante ni daanaka yaa ngi seetaan téléphone bi wala ngay déglu rajo daanaka ñoom ñu mel noonu ñoo ci ëpp di ànd ak seen mbooloo nos seen bopp ci nos seen bakkan ak buum nos ci seen mbooloo ma leen yaakaar te yàlla rek tax ñu war a tege siraatal mustaqim war leen a jot lu ndigalu yàlla ak yonentam ak sëriñ Tuubaa mi tax nit ñu topp leen defatum loola waaye dañoo ànd nas seen bakkan ci buum jébbal ko nit yi adduna bi te loolu dara jël ko ñu wommat la jëmale sawara sax war ngaa am kersa ngay dox jëm ci buntu buur yoo xam ci dara yëkkatiw la lu may sa njariñal bopp ak adduna rek loolu lu daw yaram la te képp koo xamante ni ko xam dara ci suñ borom la gis bu sa doom ñu tàng jër da nga ko sut ngir métti ak njàqare ak tiis ndax ñi nga xamante ne bu nit ñi jëlee ci ñoom la ñu war a delloo bu ñu amee jaaxle ci ñoom la ñu war a delloo ci seen diggante ak seen borom bu ñu demee ba nga xamante ni ñoom ñëpp ñi ko ëpp daanaka ñu nga gëm ci yoon woo xamante ni loolu gënut kon ku ne xam ne ni li ñu wax mujj jamono ñoo ngi ci te Serigne Touba day ko ne xam ne bi ñu wax xaaral loolu yarkan di abwaabi fala tayni taxus jawaahir tuxumi ku damaa xëy ni li nga xamante ni ñu ngi koy gaaral ci guri adduna yi mu jamono ni tolloon loolee moo xam ne képp koo xamante ni yaa ngi koy askanoo fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala turaabiya xayral ilmi wa diini kenn ku nekk ci ñoom foofu nga war a taxaw doyloo yàlla te bañ a gërëm lenn lu dul lislaam ak jaamu yàlla te loolu day képp ku ci nekk la nga bëgg foo nekk da nga naan fekk loolu yi day mooy tànk yi nga xamante ni ku ñu tudd ci tudd Sëriñ Tuubaa ci anam bu mu mën di doon ci yoon woowu ci la war a nekk keneen ku ñu tudd ci tudd nitu diine yu njëkkoon it ci yoon woowu ci la war a nekk kon yow loolu lépp dañ doon def benn mukaddima rek ak jiital ci njëkk ñu yegg ci téere bi nga xamante ni ni ñu ko waxee léegi mooy xoqa xoqa nag am na ñoo xamante ni wuute nañ ci lan moo sabab Sëriñ Tuubaa way ko am nañu wax ni xaw bi ma jaxate kala maanaam moo ko joxoon baatu xoq rek doon ko nattu am nañu ci wax yeneen wax waaye jëmm gi ñu wax maam Cheikh Mbay di wéy ñu sëriñ Sam Mbay wax nañ ni moo commencé ñu ko sëriñ bi bindee xoq ni ñu ko waxee léegi di téere boo xam ni sëriñ bi indi na ci ñelaw ñi nga xamante ni ni ñu ko waxee léegi jaay nañ seenu ndaw jox seen bopp sunu borom subhaanahu wa taala te defuñu ko ngir bëgg ci moom aljanna wala ragal ci moom sawara defuñu ko ngir bëgg ci moom lenn it lu may dumoon bi seen njëriñ subhaanahu wa taala yoon woowu yi nga xamante ni ñoom ñu jaar nañ ci moom la sëriñ bi di indi yoon wu jaar ba yegg fañ wenn mu ne xoqal bukaaw ala saadatum amwaati tabki araadi alayhim ka samaawaati la mu njëkkee mooy bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman innama al ahmalu binniyaati wa niyati tabarru saadaati maanaam jëf jëmm ju nekk ci yéene ja lañ koy àtte sama yéene tey nag mooy barkeelu ci sang yi nga xamante ne jiitu nañu mu ne ndax mu ne yàlla na ñu jooy sang yi nga xamante ni génn nañ àdduna te suuf yi di leen jooy ñu ci noonu it asamaan yi di leen jooy ndax jëpp jëmm joo xamante ni leeru suñ borom bi subhanahu wa taala mi ngi ci biiram ñu ci doomu aadama yi di jariñoo noonu la ci bay mi yi ak gàncax yi ak garab yi ak suuf yi yëpp di jariñoo noonu la ci gàncax yi ak suuf yi ak asamaan yi di jariñoo ci moom ndax yooyu yëpp ay mbindeef lañ te ñoom ñëpp ñuy yëpp leeru suñ borom lañ subhaanahu wa taala mooy tax yëpp jëmm ji leeru suñ borom subhaanahu wa taala nekk doomu aadama ak ñuur doomu aadama dana jariñ ci moom mooy tax bu génnee àdduna ni ko doomu aadama yi di jooyee noonu la ko leneen lu dul doomu aadama di jooyee abuki alayhim wa arju fil bukaai qadan ridwaana man fi qaabu bil alawaati mu ni man de maa ngi leen di jooy te yaakaar ci jooy yi nga xamante ni maa ngi leen di jooy ngërëmal ki nga xamante ni fàdd nañ jëm ci moom nekk ci wetam mooy moom suñu borom bi subhaanahu wa taala nekk ci ay bànneex ak ay teraanga yu yëngu fenn yaa lahfa nafsi ala faqdil akaabiri man xaaboo li rabbin daxaahum bil uluwaati woo naa njàqare sama bakkan ndax jëmm yooyu nga xamante ni dox ba dajeek moom fajub dox ba dajeek ñoom fajub aajala akub texe dox ba dajeek ñoom dajeek njëggalug suñ borom la ak bàkkeem ak tawfiqam ci mbooleem doomu aadama yi waaye it ak mbooleem luy dund lépp suñ borom subhaanahu wa taala dana dogal ñuy am yëg yëg suñ borom te di ko jaarale ci jëm yooyu ñooy xet li kaw suuf ak yi ci biiram lépp moo tax mu ne man day woonaa njàqare sama bakkan ci ñàkku sangu yu màgg yooyu te kawe ñi nga xamante ni fàddu nañ jëm ci seen borom bi nga xamante ni moo leen génne àdduna woo leen ci béréb yu kawe yooyu inal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir ñu nekk ci béréb ñu maqaadi sidqin fa suñ borom bi subhanahu wa taala di béréb yu kawe yoo xamante ni ñoom ñu doxoon seen bopp seen borom wanoon gannaaw àdduna ak li ci biiram bala xas jëm alaaxira suñ borom mën leen yóbbu ci béréb yu kawe yooyu tabki layaali alayhim wa zuhuru maham mitla al asiyi wal jinn wal fuduwaati dana leen jooy muy guddi yi nga xamante ni daanañ ko dundal fu ñu toll te dana ko wax ci kanam waaye weer yi nga xamante ni daanañ ko feesal benn ak yiw ak ngoon yi nga xamante ni daanañ ko feesal benn ak yiw ñooyu yëpp danañ leen jooy ngir njàqare ñekki noonu it suba yi nga xamante ni daanañ ko feesal benn ak yiw danañ leen jooy kaanu ibadan bi taaxaatin li rabbihimoo wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati nekkoon nañ ñoo xamante ni day suñu te jëpp lenn rek la woon mooy li leen suñ borom bi subhanahu wa taala diggal ci pas-pas ci kàddu ci jëf mu saxoonte waaye suñ borom bi nga xamante ni lépp lu mu daane du dañ moom itam nekkoon na di leen defal ay tawfeex ci mbooleem lu ñu bëgg ci ay xéewal suñ borom di ko wommat moom la ci ñoom ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun ñoom day foofu lañ nekkoon xam nañ ni suñ borom lenn rek la bëgg ci jaam ne mooy ñu sax ci di ko jaamu déggoon na nit wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa képp kuy nekk ci kaw suuf suñ borom mooy ko gàddu sa wërsëg ñu xam ni lee suñ borom a ko gàddu lii ci seen ndodd la ko teg lam teg ci seen ndodd bi nekk ca la leen suñ borom gàddu ñu bàyyil ko seen borom ñu bàyyil ko seen borom subhaanahu wa taala suñ borom taxawu leen ci lu nëpp ak ci lu feeñ kaanoo yaxudduuna tarkal wirdi min sibahin min al alaali min asbaabil musibaat nekkoon nañ ay jëmm yoo xamante ni daanañ limaale bàyyi werd werd mooy lan mooy nit ki loo xamante ni da koy saxal ci tudd yàlla wala jàng alquran wala loo xamante ni jëf yiw la lu baax doon werd sax bokk na ci donte da ngay xëy foo xëyee rek joxe keesu miskit saa sa ko ngir jëm yàlla wala foo xëyee def laa ilaha illallah téeméer yoon wala subhanallah wala alhamdulillah wala werd woo xamante ni yaa ngi ko jële ci ismul xaas muy koo xamante ni ku xam yoon wi la te teg la ci ndigal lam la jox la di ko saxal werd daal mooy loo xamante ni donte ñaar raxkaay yoor yoor la mooy loo xamante daal nit ki daf koo saxal ci jëfi yi loolu mooy werd nekkoon nañ ne limaale la nga xamante ni aadawoo saxal nañ ko di ko def doon nañ limaale bàyyi ko benn bis wala bàyyi ko ca waxtu wañ ko daan def te amuñ benn ngànt wala ngay lekk ba ba sa biir fees ci loo xamante ni lu lu dagan la mu bokkoon loolu daanañ ko limaale mu bokk ci sabab yi nga xamante ni mën na jural musiba nit ki àdduna ak alaxira waxuñu la regg ci lu xaraam waaye regg ci lu lew lañ la wax daanañ ko limaale mu bokk ci bokk ci sabab yi nga xamante ni mën na jural nit ki musiba ndax regg nit ki bu duyee biiram ba mu fees mën na koo jural cër yu tàyyal yaram wu diis yi ci juddoo bari na te yooyu yëpp dana ko gàllankoor ci ay jaamu yàlla kaanu ida laylu alqa arxa sitra saa halakin qaamoo shiraaxan li ihyaai bisinnaati nekkoon nañ jëmm yoo xamante ni heure bu guddi sëmbartalee suturaam maanaam heure bu guddi jotee muy heure bu jant soyee ba guddi gi nekk lu lëndëm këliis ñu jóg ci lu gaaw ngir dundal guddi yi nga xamante ni duñ yàkkamti mukk lu dul guddi jot ba ba mu lëndëm ñu jóg di jaamu seen borom subhanahu wa taala ci guddi yu lëndëm yooyu di ko fàttalikoo nag ak di teewal ci seen xel ak ci seen xol lëndëmuk bàmmeel ak lëndëmuk taxawaay bi ci pénc mi ak waxtu wa ñuy jéggi siraat muy lëndëm gu tar goo xamante ni ak leer rek moo cay mën a jàllale nit ki te leer googu mu ngi juddoo ci jëf yu ak waxtu yu gannaaw ba nga koy yéene mooy tax ñoom saa su guddi gi ma saa lëndëm danañ jóg ci seeni lal ci lu gaaw ngir di dundal guddi yooyu ndax xamuñu ndax guddi ga ca topp dana leen fekk ci kaw suuf wala déet baaxoo fudulan bi dikrillahi xaaliqihim fanawma fi leyli baaxoo bil munaajaati jaayoon nañ wanoon gannaaw lépp loo xamante ni waxu caaxaan la wala jëfu caaxaan wanoon nañ ko gannaaw wottee ko lan sax ci di fàttaliku seen borom ci seen xol di ko ci teewal waaye di ko tudd seenu làmmiñ di ko jaamu ci seen cër seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moom leen te kàttanam leen te defal leen tawfeex yoo xamante ni kenn fekkute suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye nelaw ci guddi yi jaayoon nañ ko jënde ko di jëyaaleeg seen borom bi nga xamante ni mooy ki leen bind ba tey te melal leen te kàttanal leen fu guddi masaa jot dañuy daal di toog di déeyaale ak seen borom subhaanahu wa taala ci téeréem bu sell bi wala ñu di ko tudd it ci turam yi sell yi loolu lépp nag yëpp jëmm joo xamante ni yaa ngi gis ni bari na ñoom tey ñu ngi fa guddi di fo ak a caaxaan te di ko am bànneex ak mbégte am na ñoo xamante ni ñu ngi fa guddi ngir bëgg adduna rek di dox ay kilomètres ci biir géej wala ci jéeri wala ci jaww yoo xamante ni du ànd ak nelaw ay coono ak ci jafe-jafe ñoom lay àndal te adduna rek la ñuy wut te xamuñu ndax danañ ko am wala déet ki nga xamante ni kon dafa dëgmal boromam te nam ma làq ngërëmam ñooy wut leneen lu dul yàlla di wut adduna rek lam leen jaral yow muy wut yàlla suñ borom subhanahu wa taala war na laa jaral loolu sax ñu ëpp araam na sax ci ñu ko nit di ko dëkkalante waaye nag yàllale googu yi ak teewal yaar yooyu dana tax borom xel bu xalamee yitteem gën a kawe dem yitte bi jëm ci suñu borom bi subhanahu wa taala tey jubal ma baa jeex fii lay leen junoo bu xumee naa fii na salma wala laa du misaaraat ñoom day daanañ sori seen sàlli wet su guddee ci seeni lal daanañ ñu ñokket bu guddi gi lëndëmee ñu jóg ci seeni lal jàpp ba xel jublu seen borom bi nga xamante ni ëllëg kenn ku ci nekk dana wéet ak moom ba jàpp ne moom rek la bindoon danañ daal di jóg ci seeni lal di sant seen borom subhanahu wa taala ni ñu ko waxee léegi ci waxu seen al xaabidin julli yooyu yi kat seenu jaamu sant yàlla lañ ciy jublu ci tawfeex ñu ngi leen defal ci seen jëmm ak ci lu leen wër waaye dawul seenu jaamu nekkut bëgg aljana wala ragal sawara kenn ku nekk ci ñoom nag daanañ jóg ci guddi gi mataa jot daanañ sawar seen xel ba ni ko suñu borom waxee tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum xawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna daanañ sori seeni sàll yëpp seeni lal ngir ragal yàlla ak xemmeem ko muy seen borom bi leen bind daanañ ko boole it li leen suñu borom wërsëgal ñu ci yëkkati ngir jëm yàlla di ko joxe naa si na salma wa laylaa bil bishaaraati nekkoon nañ ñoo xam ne ñuy fàtte salma ak laylaa lañ loolu luñ ci jubloo wax ñuy fàtte seeni soxna lañ ngir dëgmal seen borom bi subhaanahu wa taala ci lu dul lu mun ta ñàkk fa aysuma barasat laylaa bi bahjatiha anha tawallaw ilal mawla bi taaxaati su fekkente ni laylaa dafa misaat rek seen soxna génn nañu amee melaw a gën a taaru ngir bégal leen daanañ ko dëddu ngir dégmal seen borom bi nga xamante ni mooy ki leen bind te moom leen te mënal leen ci topp seen borom bi subhanahu wa taala yan saw na layla wa zuuda fi qiyaamihima mustanisiina bi askaarin wa ayaat nekkoon nañuy fàtte layla ak zuuda muy seeni soxna ci taxawaay yooyu yi ñuy taxaw ci guddi yi ngir jox seen bopp seen borom subhanahu wa taala ak di ko jaamu waaye lañ leen daan wéetulu ko mooy tudd yàlla ak jàng alquranul karim te di ko setantal xadisuhum zikru moqmin naafin samadin la zikru xindin wa lubna fi lmaqalaati seen waxtaan yépp it mooy tudd suñ borom bi nga xamante ni mooy aju doylu bi mooy aju jariñe bi mooy kilifa gi nga xamante ni ñépp ko soxlaa lañ ko te soxleelul kenn seen waxtaan lépp day ci suñ borom subhanahu wa taala la jëmal waaye du tudd du tudd xend maanaam am réew la loobu naan am réew la waaye suñu wax tey boo ko doon misaal daal du nekk di tudd ay Italie ki Amérique ki France ak di waxtaane réew yu mel noonu ngir am am ak yu mel noonu waaye seeni wax lépp rek fàttaliku seen borom la subhanahu wa taala qawmun bi aslihatin axdaahum qahayo xataa xalaw bi ma saayaawal karamaati aw nit lañ ñoo xamante ni ci seeni ngànnaay ci lañu nokk seeni noonu ba kawe ci ay may yoo xamante ni suñ borom may na leen ko ci loo xamante ni aw làmmiñ mënu ko tudd xel mënu koo xalaat suñ borom yi defal leen ay karaamaa ci teraanga yoo xamante ni xel lot na it ci xalaat ko arkaanu bayti jamihil xawmi arbaxatun biha yu assasu bunyaanul wilayaat waaye nag nit ñi ñi nga xamante ni ñooy doon ba yonent yi alayhimu salaatu wassalaam jaar ci seenu yoon ngir sellal seen digganteeg seen borom subhaanahu wa taala ak seen digganteeg seen morom bu doon yoon ci néeg lañ nekk ponk néeg ya yoon woowee ñu jaaxam ponk ba ñeent la yoo xamante ni li ñuy wax wilaaya nga xamante ni wilaaya ci géejug nubuwa lañ ko tànkee la leen fekk yeggale ñoom ñoom ñi boo ko doon seet yent mbir la ba ca njëkk mooy sumtun wa juuxun tawilun bahdahu zaharun wa uslatun an si yooxin bil isaraat noppi ci lépp lu amul njariñ lépp loo xamante ne suñ borom bi subhanahu wa taala gërëmu ko dawul ko tudd mukk ci seenu lam yi ñu daan koor koori ngàtt nga yu bare bari la ndax wax su fekkee ne ab safaan la dafay tuur ak lëndëm ak salte ci roo ak xel te su boobaa kiiraay yi nga xamante ni jaam bi war na koo dagg ba roo xam mën a nekk lu set ba yegg ci xeeti xam-xam yi wilaay yooyu ñuy wax feek mi ngi wax loo xamante ni ab safaan la loolee lépp ay lëndëm lay doon di gën a fatt kiiraay yooyu waaye su fekkente ne fu mu toll tudd yàlla ak di ko fàttali ko lay def kiiraay yooyu yi dafay gën di set ruuxam di gën di set xelam di gën di set ba mboolem xeeti xam-xam yooyu ñuy junj yëpp day dem ba di ko yëg ci jëmmam tombam ñaareel ba mooy xiif daanañ xiifal seen bopp muy di koor koori ngàtt nga te suñ borom bi subhaanahu wa taala rek a tax muy xiif bu gudd boo xamante ni daanañ ko def di taxañ ay bis wala ay guddi yu bari ngir di ñàkk lekk ndax yooyu yëpp yi dafay néewal doole seytaane ak bakkan ak bànneex ba ñi nga xamante ni noonu la seenu dox di gaawee mënees ko misaal ba tey it daanañ ca boole it foog guddi su guddi ma saa jot ngay jóg di def ay naafila wala ngay jàng alxuraan wala ngay tudd yàlla ak it di wéet am sëriñ bu matub sëriñ nit boo xamante ni yoon wa xam na ko te moo la koy jaarale ba foofu yépp nag nga mën faa yegg mooy tax yent yooyu tamit nit ki su koy defit day laaj it mu ànd ak sëriñ boo xamante ni sëriñ bu matu sëriñ la ndigal yam koy jox mu di ko jëfe la mu koy tere it mu di ko teet donte digal na ko loo xamante ni sax loolee bakkanam gàntal na ko da koo war a jëfe donte tere na ko loo xamante ni lu bakkanam bëgg la it da ko war a wan gannaaw ci lu benn dengi dengi ñu ngi ko misaale ci yeneen i anam mooy tax yent tomb yooyu yi ñoom ci lañu yeggee ci fa ñu yeggee ci wilaaya ak ay may yoo xamante ni xelot na ci xalaat ko qawmun tariquhumu takfil murida asan minal maridi wa anwaaxal xururaati ñoom day aw nit lañ ñoo xamante ni seenu yoon mooy fegal képp koo xam ni aju na ci ñoom te yàlla rek tax ñu fegal ko bépp lori adduna ak bépp lori alaaxira fegal ko it bépp lor boo xamante ni dana tukkee ci aju féetéer lañ mooy seetaane ak mbooleem nag xeetu wor yi ndax yoon la woo xam ne it li ciy war doomu aadama bari na te takku na te kenn mënu ko misaal it doomu aadama ndax jëm ñu sóobu ci yoonu yàlla ni ko imaam Xasaali yi waxee ci Ihyaa Ulumuud Diin danse yu bare bare bare bare bare ñu ngi ci mooy tax képp ku yàlla defal tawfiq nga am sëriñ bu matub sëriñ suñ borom defal na la loo xamante ni lottu nga ci kant gi war sa diggante sa borom da nga ci lottu adduna waaye da nga ci lottu bi alaxira ndax li nga xamante ni day wor doomu aadama bi dafa bari ci ci anam yu baree baree bari yi ci lay dikke mooy tax xëytu sëriñ yi sëriñ Tuubaa doon ko misaal waaye ci biir xëytu sëriñ yi tolluwaay yi dafa wuute te nit am na foo xamante ni feek yëggu fa du mën a xet li jaam bi dëgg dëgg xet li ndax nit ki kat lam mën ci fii rek ci géej ku ànd ak moom it fa mu mën a yem ci fii rek fa nga yem loolu mooy tax yoon wi tamit ñu ci sóobu ñu leen di tudde ay sëriñ wala ñi nga xamante ni ay taalibe lañ leen di tuddee ñaare li ñu koy misaale am na ci ñooñu dafa mel ni dañoo wari mbaam ñuy wari fas ñuy ci seen wàllu bopp dugg ci oto ñuy dugg ci bato ñuy dugg ci avion te ku ne xam ne ni tey ku dugg ci sareet am na foofu sareet mënu faa jaar ñi waru mbaam am na foofu mbaam mënu faa yegg te bu yeggee ci am na foofu bu fa yeggee te mënut a jàll ku ne xam ne lay xew ñuy dugg ñuy waru fas it noonu ñu dugg oto yëpp am na montagne yoo xamante ni ko ne xam nañu oto mënu koo jéggi waaw ñu dugg ci bato yi am na foofu noonu waaye nag ñi nga xamante ni ñooy ñooy mucc tey taxe mooy ñi nga xamante ni dugg nañ ci avion nga xamante ni xëy na tey mboolem tund yooyu yeeg montagne yoo mboolem jafe-jafe yooyu yëpp dana ko tiim ca kaw noonu ñu noonu ñu ñëpp sëriñ si wuutee nit ki nag fu mu fi jaare rek ca melowoowee rek foofu rek fa lay mën a yem mooy tax yoon yi dafa bari ay woru yoo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne jaar nañ ci yoon woowee ba yegg ci dëgg dëgg suñu borom subhanahu wa taala ñoo ñuy def mooy ñi nga xamante ni danañ mën a fegal seen teelu bi loolu adduna ak loolu alaxira ak mboolem xeetu wor yi nga xamante ni yëpp yi danay war doomu aadama xeytaane di ko feeñal ci seen kanam ci seenu nekkin ndax ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa bari na ñoo xam ne daana ñëw ci ñoom ñoo xam ne daanañ def ay karaama yu rëy rëy rëy waaye ba ñëwee da leen a xamal ne lii du dara ba won leen loo xamante ni ñooñu ka lañ xamee ni loola ñu nekkoon kat du dara ndax da nga gis koo xamante ni ni mu koy waxee ci mujj masaali day wootee ab sëriñ karaama yu ne mu di ko def te fekk ne demul fenn yooyu yëpp nag dafay loo xamante ni leeral bi dana gudd te xëy na am nañ yéene leeral ko ci yeneen i am mu ni tarixoom xas bi wasillaahi doona hawan maal usuli lati tanfiru xonaate ñoom day seenu yoon mooy jublu rek jëm suñu borom bi subhanahu wa taala wan gannaaw it lépp loo xamante ni du suñu borom bi subhanahu wa taala lépp luy bànneex jaare nag ci yoon wi nga xamante ni lépp lu yàlla gërëmut tamit aju ci bakkan danañ fexe ba dàq loolee wan loolee gannaaw la ñuy jiital nag ci seenu dox mooy tuub tuub bu sell ni ñu ko waxee léegi min tawbatin xadimat xawfin rajan mahoo ixaaroxu min dawaaman bil qanaxati daanañ tuubal dañ tuub tuub bu sell ba la ñuy sóobu ci yoon woowu yi dañuy jiital ak tuub bu sell ci bépp pas-pas wala kàddu wala jëf suñu borom bi subhanahu wa taala gërëmut misaal nañ tuub bu sell ba tey boole ci ragal yàlla ak yaakaar yàlla yaar yooyu dañuy boole ak bari njàqare fu ñu toll te saxit ci doylu ak dëddu ci lépp lu weesu wala adduna bi nga xamante ne luy jeex la lépp danañ ko wan gannaaw ci seen xol gannaaw ba it daanañ sàmm seen juróom-ñaari fiir yëpp daanañ sàmm seeni nopp ba duñ ci déglu lu suñu borom bi subhanahu wa taala gërëmut sàmm seeni gët ba duñ ci xool lu suñu borom bi subhanahu wa taala gërëmut sàmm seeni loxo ak seen biir ak seen bëy ak seeni tànk ci lépp lu suñu borom bi subhanahu wa taala gërëmut ak wàcceeku ci yàlla jébbal seen bopp suñu borom bi subhanahu wa taala lépp lu suñu borom bi subhanahu wa taala dogal ñu gërëm ko te duñ jàpp ni kenn moo leen ko teg wala lenn ko sabab wala kenn ko sabab kuy dund muy mbindeef ak it di muñ ci lépp lu leen suñu borom bi subhanahu wa taala nattoo ci seen jëmm wala ci seen alal wala ci seen njaboot ci bépp waxtu muy was soxdi fii kulli faanin baxadoxoo waraxul maxat tawakkuli sabrun kulla saxaati jihaadu nafsin wal zakurun bil xabaar léegam tarkul tifaati ilaa xaalil bariyaati jihaat ak seen bakkan fu ñu toll ba wépp melaw woo xamante ni suñ borom bi subhanahu wa taala gërëmu ko ñu rékki ko ci seen bakkan te kaayal ko wépp melaw woo xamante ni suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm na ko ak sax ci di sant suñ borom bi subhanahu wa taala ci tawfeex yi ñu leen defal ci seen jëmm ak ci li leen wër ak it lépp lu suñ borom bi subhanahu wa taala dogal ñu gërëm ko yegg ci ba lépp lu yàlla dogal ci sa jëmm wala ci sa alal wala sa njaboot nga gërëm ko fa saasa nga xamante ni doo dem jàmbat ko fu ne ba ñàkk pexe loolu kon nangu waaye al sabru inda satmatil ula ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ni la lay dal fam la dalee rek fa nga koy daal di muñee delloowaat lépp ci yàlla ñoom noonu woowu mi la lañ amoon ak it di wattandikoo geestu jëm ci mbiri mbindeef yi ñoom daal la leen yitteel ci lu jege ak ci lu sori mooy seen jëmm seen diggante ak seen borom amaatuñ ci leneen yitteel nit ñi melo wuñ mën di mel ak luñ mën di def ak luñ mën di nekk ñoom duñ gëstu mukk jëm ci seen mbir ñoom daal seen diggante seen borom ak seen ay bopp rek ca lañ nekk tariqoom xasratan jaat lawaasimuha laa budda minha li arbaabil iradaat seenu yoon nag képp koo xamante ni yaa ngi ci bëgg a jaar dafa mel ni fukki tomb la loo xam ne yoo xam ne képp koo xamante ni boroomu iraada la képp koo xamante ni namm naa jug dox jëm ci boromam subhanahu wa taala tomb yooyu yëpp war na ko matale fa maqsadun waxumaa yufdi ila safarin minha dalilun ka cheikhin si futuhaat la ca njëkk maanaam mooy ak jublu ndax nit ki du jóg mukk jëm ci béréb te amut ak namm ak jublu ndax bala ngay tukki xam xel day nekk ci tukki ak bëgg am ci loolu mooy tax képp koo xamante ni dem na ba gis ne adduna du kër gu saxwaay waaye këru rombuwaay la mu gis ne lépp lu fi nekk luy deñ la bu dee lu nëtëf ci ràpp la jëm bu dee lu yëkkati ko ci suuf la jëm bu dee lu tooy la ci wow la jëm bu dee lu dund la ci dee la jëm mu fas yéene adduna bañ koo war mu dëkk man kërug ëllëg di alaxira li kër guy def ba xaw te ku fa texe mooy kay tax mooy ka texe ba xaw ku fa texee di mooy kay texee di ba xaw mu jóg dëgmal boromam kooku mooy borom yitte ju kawe bu amee boobu pas-pas nag ak jooju yitte nag lam ca war a teg mooy sëriñ bu matuk sëriñ boo xamante ni suñ borom ubbi na ko ci daahir ak ci baatin ba mu xam yoon wi ak gàllankoor yi ci nekk yépp mu mën ko ko fegal man koo jaarale ci yoon bi nga xamante ni dana àgg ci boromam mucc texe làq ngërëmam la gën a kawe soo amee bëgg googi jublu googi am sëriñ bu matul sëriñ war ngaa am ak yóbbal wa faadu wa huwa tuqaa min ha sidaawayna wa huwa alwuduu alladi yanfi najaat najaasaat soo amee sëriñ bu matul sëriñ it war ngaa am ak yóbbal ndax kii tukki war naa am ku ko tegtal yoon wa yoonu dëkk ba mu jëm loolu mooy sëriñ bu ma def sëriñ waaye nag war ngaa am ak yóbbal yóbbal bi mooy lan ragal yàlla ci lu nëbb ak ci lu ak ci lu feeñ lépp ndigal loo xamante ni sëriñ bi jox na la ko nga jëfe ko ci gën ngaa selli anam sa ngay saxal ci lu yàlla gërëm sa ngay sa kàddu sa ngay say jëf bokk na ci it booy tukki it war ngaa am ngànnaay loo xam ni ci yoon wi liy dogee ci yoon wi yépp loo ci dajal ngànnaay loole mën la koo fegal loole mooy takkoom njàpp mi nga xamante ni dana tax benn sobe du dalaal mooy moo tax képp ku nekk ci yoon yàlla yi fu mu toll fu mu njàppam yàqoo rek dafa war a jàppwaat mooy takkoo am njàpp minha siraajul fikrillahi janna ala minha almataya bahim magal xaliyaati képp kuy tukki it war ngaa aajoo ab làmp boo xamante ni heure bu guddi jotee nga mën di xam fi ngay jaar di ci mën di niitu làmp boobu mooy saxal tudd yàlla foo toll di ko fàttaliku sa xol di ko tudd ci saw làmmiñ kuy tukki dana aajuwaay dana aajowoo warawaay warawaay boobee mooy yitte ju kawe te sell te yàlla rek tax min hal hukkaasu bi xajisin wala xisaamu la ahli tariqati xasamin bil xaqiqati kuy tukki it war nga am ab doq boo xamante ni boo sonnee mën ci sukkandiku ci dox bi war nga am laxasaay goo takk ci sa ndigg goo xamante ni xëy na moo lay gën a kàttanal ci dox loolee mooy dogu gu mat sëkk ci yoon wi nga aw doo dégg dégg mukk ci sa pas-pas doo am benn sikk sàkk yi ci sa pas-pas wa min lawaasimiha minhaajuha abadan wa hiya sarihatu fi bad'in wa xayaati bokk na ci yi nga xamante ni kii sóobu yoon yàlla yi da war na koo taxoo it muy sóobu waayam mooy sarihatul mutahara ci bi ngay tàmbali di suub ci yoon yàlla ak bi nga yeggee ci suñ borom subhanahu wa taala boo seetloo nag foofu yi bari na ñoo xamante ni daneen di woote woo àgg ci yàlla ba tax yu baree baree bari ñu di ko jëfandikoo wala melo yu baree bari ñu di ko mel ci ay xeeti xam-xam yoo xamante ni ci dañ koy teg waaye ni ñu ko waxee léegi tasawuf ci alquran lañ ko tibbee ak sunna ngay door a tàmbali kiy door a suub yoonu yàlla ak kiy yegg ci yàlla du génn sarixam mukk du ko bëtt mukk doonte sëriñ bi ci masaaru ko ginaar wax nañu léeg-léeg nga gis wël yoo xam ne dana nattu njabootam ci loo xamante ne li wuteeg sarixa la loolu tufu tufu koy wax fii waaye boo seetloo dafa bari ñoo xamante ni dañuy wone ni di leen jëmale ci yàlla du leen jox ay xeeti tomb yoo xamante ni tomb xam-xam lañ koy wooyee ak di wax ni dañuy gis yàlla ak yu bare bare bari lu yaatu la fi mu ne nii ci réew mi nga xamante ni foofee buñ la fa dugalee ñu ci bari aljana ak sawara yooyu yëpp dañ koy dàq daanaka dañ fiy jóge nekk seytaan ne si féetéer di jëf lu leen neex di def lu leen sopp julli duñu julli duñu woor lenn loo xamante daal lu lislaam di digle ne daanaka dootoo leen ko gisati ci seen bakkan ak seen bànneex rek la ñu nekk te loolu kuréel yu yaatoo yaatoo yaatu lañ ci biir réew mi te boo fekk boo demoon ci seen biir am na ay xeeti tomb yoo xam ne dañ koy xamle di ko teg ci laa ilaha illallah ak ci xaqiqa ak ci tudd yàlla nga xamante ni foofee képp ku ñu fa dugal ñaare ngir ngi rëcc ga dana jafe-jafe bu jig gi dayoo waaye ñoom dañuy teg gi sare xa sànni fële nekk ci seen bakkan nekk ci seen bànneex waliyasu billah waaye nag yoonu yàlla ku ci sóobu ngay door a tàmbali ak nga àgg ci yàlla ñooy yem rek doo génn sariha mukk talooy sàmmanteel la foo toll dañ koy waxit alkaamil man laa yutfi nuuru maharifati noora war a him ki ma dëgg te àgg ci yàlla mooy koo xamante ni leeru xam yàllaam du fay mukk leeru sarihaam bokk na ci ci jaar ci wóoyu yoon li nga xamante ni mënu koo ñàkk it warof xatul waxi ixwaanum lahum ximamun maxala wafaay bi sudxen fi quwaati ay àndandoo yoo xamante ni say bokk lay la ñuy doon ñoo xamante ni yéen a bokk lenn lu ngeen bëgg yéen a bokk lenn lu ngeen wut yéen a bokk it wenn yoon lu ngeen jaar ngir yegg ka ñoom itamit dañuy am yitte ju toll ji nga amee ànd ak it di matale wullëre seenu jaayante luñ dëgg lay doon seenu mbokk it ak seenu bokki taalibe yi lu dëggu lay doon ci ñoom luy sax lay doon it ci ñoom mooy tax képp koo xam yaa ngi tukki ci yoon woowu yi tamit faaw nga am ay àndandoo ñoo xam ne ni ñu ko waxee léegi yéen a bokk bëgg yéen a bokk bañ yéen a bokk dëkk bu ngeen jëm yéen a bokk yoonu ngeen jaar te ñoom ñooñu ñu tamit da ngeen di ànd di soññante ci ragal yàlla ci maandu ci rafetal ku ci bëgg a yokkat sax morom ma gën koo dolli gën koo ñaaj xamal ko ne ko leen bëgg kat ci la aj faju aajo tey nekk ak ëllëg di ko fàttali doy di adduna ak gentam ak ñàkk solom di ko bàyyi loo xel ci am gërëmal yàlla li mu ko mën a jural ëllëg ci teraanga ci tawfeex ci bànneexu yéenul fenn nga xam ne ci yu mel noonu la ñuy soññante ba kenn ku ci nekk fu ñu dajee bu ñu soññantee ba noppi ku ne gën a yëg ni yitteem gën naa kawe gën naa sell fépp fu mu toll nii weesu na ko ci biir soññante yooyu moo tax bokk yu mel noonu it mënu cee ñàkk wal kullu min jumlati saadaati surutabin yakfil murida maridan saaxawayaati kenn ku nekk ci sang yooyu borom daraja la ju kawe suñ borom subhaanahu wa taala nga xamante ni dana fegal bépp képp ku nam ma jëm ci suñ borom subhaanahu wa taala te jaar ci ñoom danañ la fegal seytaane ñi nga xamante ni mooy aju fékkër ji tey borom mberte kullun min al qawmi cheikhun aalimun warihun minhum murabbin bi askaarin wa xaalaati kenn ku nekk ci nit ñooñu baatu xawmu ñoom ñooñu ñëpp buñ koy jëfandikoo liñ ci jublu rek mooy jëmm yooyu nga xamante ne ay nitu yàlla lañ ay waliyu lañ ñu fees dell ak leeru suñu borom lañ subhaanahu wa taala doon lu leer ak yonent bi ci zaaxir ak ci baatin ñoom lañ wax ñaari al qawmu saa suñ ko waxee rek ñoom lañ wax moo tax mu ne kullun min al qawmi cheikhun sëriñ la boo xamante ni ku xam yàlla la waaye ku sàmm la am na ci ñoo xamante ni danañ yar seeni taalibe ci tudd yàlla ak di ko fàttaliku muy ci ay sikki am na ñoo xam ne dana yar seen taalibe ay xaal maanaam ci melo yoo xamante ni ñoom ñoo koy xam seen i diggante ak seen i taalibe minhum muraqin bi xaalin wahdaha abadan minhum murabbin muraqin bil isaraat am na ñoo xamante ni danañ yar seen njaboot ci wenn melo rek woo xamante ni ñun ñu amee ñëpp ci wenn melo woowu rek ci lañ leen di yar masalan koo xamante ni rek am na benn saafara soo xamante ni daal feebar boo mën di amee buñ ko joxee rek léegi am na ñoo xamante ni danañ yar seen taalibe danañ ko yéege ci ay junj ndax yoon yi jëm ci suñu borom subhanahu wa taala ñu ko Sëriñ Tuubaa di waxee toll nañu nooy yu mbindeef yi ci suñ borom dogal nag mu xam suñ borom dëgg dëgg dëgg ñu ne rek mën na caa jaarale nit ki ngir àggale ko ci yàlla mën na lay suturloo mën na laa toogloo ci benn béréb. mën na ne la yëkkati ma course bi teg ko fee yëkkatil kaamil bi teg ko fee yu yu lu tuuti rek ñi nga xamante ni mat nañ dëgg te àgg ci yàlla dëgg fi ñu mën a jaar ba yeggale nit ki ci yàlla toll na ni nooyu nooyu ñu dem mooy tax ñuy bëgg taalibe bi saa su yeggee ci suñu borom defal ko taw fi mu ànd ak sëriñ bu matu sëriñ lépp ndigal lu mu ko jox rek mu jëfandikoo ko te jàpp ni loolee ca la faju aajoom adduna ak àllaaxira nekk